jërëjëf soxna Ndeye jaw ñu ngi sant ci kàddu yi rafet yi noonu ma ko waxee rek mu teewal fi jëwriñu mbooloom soxna yi waa Kër Borom Touba yëpp muy sunu yaa Kine Sogg waaye nekk jëwriñu kuréel làmp tamit nga xam ni mbooloo mu yaatu la kon noonu ma ko wootee rek ñu ngi leen koy fàttali waa kuréel làmp yëpp ak waa kuréel safar soxna yi ñu ngi leen ciy woo ci bis boobu bis bu yenn lay doon kon ñu jox Serigne Souleymane saw mu daal di kàddu organisation ñu yéegal liggéey bi